waaye opposant wala c'est la pour pour man d'abord benn ah, benn bokk yaakaar amatul léegi parce que benn bokk yaakaar c'était une coalition électorale mm -hmm. pour gouverner ensemble léegi amul lu ñu gouverner n'est-ce pas mm-hmm. donc ñooñu amatul mm-hmm. parti bu ne day dem d'ailleurs ñaari parti lu ñu amoon ci amoon doole mm-hmm. AFP dafa am problème parce que Moustapha Niasse est assez vieux et je pense qu'il a dit que moom day bàyyi mais il va prendre qui problème parti socialiste dafa tasoon presque ah Khalifa Sall dem côté bii même parti bi ci boppam am na aussi ay ay ay tendance ñooñu aussi seen priorité mooy tey defarat seen partie parti defar seen partie du affaire ba ne boo ko yaakaar APR ci boppam pour man du parti Parce que qu'on n'a jamais vu un parti, depuis qu'il est créé, depuis 2008, gouverner 12 ans, Masul Def Congrès. amul section amul sous-section amul responsable régional amul rien lu ñu amee rek mooy seen bureau politique et et Macky Sall moo moo nowee waa bureau politique. Hmm. et Macky amul numéro 2 amul numéro 2. et je pense que moom euh, c'est pas possible mu diriger parti bi à partir de l'extérieur du mën a nekk alors parti bi dafa choisir woon Amadou Ba pour nekk candidat aux élections présidentielles xam na nañu aussi parti bi ci division bi ak présidence ci bokk boppam comportement bi neen Amadou Ba n'a pas été soutenu correctement par tout le monde mais au moins am na 36 pour cent logiquement logiquement su dee parti la c'était un vrai parti ah structuré su dee moom moo nekkoon numéro de Macky Sall dem na moo waroon jël parti bi. n'est-ce pas mais defuñu loolu donc Macky mu ne moom bàyyil dara c'est lui lu est le président de parti moom moo dirigé moo secrétaire général. Euh, APR moom moo dirigé APR donc Amadou Ba amul benn responsabilité. Mmh. et Amadou Ba aussi c'est pas mosu def politique de politicien. Mmh. Amadou nekk na politicien à partir de premier ministre. ah man xaw ma am xawma ma man ci Amadou Ba. Mm. xam fan mooy nekk base am est-ce que Parcelles Assainies est-ce que Thiès est-ce que mm. Fouta xaw mon temps aussi vraiment pour mu mën a diriger. parti wala pour mu créer parti créer mouvement jiite ko il faut mu préparer bu baax donc ça veut dire quoi pour man APR tas na kenn mu wax ne le député de l'APR à l'Assemblée nationale ñoom dañu wëtee nii wala dañu wëtee nii xëy na groupe parlementaire bi xëy na benn comme amuñu amuñu exemple pour seet ndax groupe parlementaire bi benn la ba léegi wala am na ay député ñu dem nii wala def nii ba mënuñu wax dara mais xam naa ne rek Ablaye Wade bu mu waxee fii bu ñëwee en mille mais waa pes ñoo nekkoon majoritaire ci assemblée bi. Mm-hmm. mais négocier na ak ñoom ba voté ay loi yu bëri. je pense que Macky Sall aussi noonu la noonu après balaa mu dissoudre mais bii bokkul ak contexte bi. Mm-hmm. c'est différent. Mm-hmm. parce que Macky Sall bu mu ñëwee Abdoulaye Wade aussi dafa waxoon ne mag en tout cas ñun dernier conseil des ministres mu ne il faut soutenir le président il a même prié pour lui bu leen indi problème pour président bi ba mu def lu ma def c'est-à-dire finalement jël kër yi toroxal Karim Wade du ko ci kaso bi après exilé ko loolu la def alors pour des ci Karim Wade junju nga sànq li ko teree bokk ci élection présidentielle bi dafa mel ni kon yéen coowal juge yi ñu corrompre te ngeen tuumaaloon ci Amadou Ba yéen a ngi ci ba léegi pourquoi déggatuñ leen ci preuve yi ngeen doon wax kenn gisagu leen ngeen génnee ko euh, ci ay accusations la ñu nekk ba léegi et des accusations quand même très graves. il faut pas inverser les choses parce que ñun PDS def na lu ma waroon def. jaar par la voie parlementaire demande parlementaire et loi bi dafa wax ne su dee am na ku porter plainte rek voie boobu jeex na léegi da ngay laaj juge bi lu tax ba léegi moom continué wul plainte am boobu loolu nga war a wax. ah moom def na li mu a def moom plainte na de. su plainte justice bi na réglé du ñun. ok juge bi def na plainte. mais nag da nga war a poser question justice bi. mais yéen am ngeen ay preuves que ni Amadou Ba moo corrompre les juges constitutionnels ba Karim Wade bokkul. ma ne c'est la commission enquête parlementaire su demee bés bu moom moo waroon publier preuve yi joxe preuve yi n'est-ce pas mais ñoom du ñu arrêté enquête bi. mais yéen PDS fan ngeen teg accusation yooyu. ma ma mënuma la tontu ma ne dañuy def suñu preuve ci enquête parlementaire bi ñoom juge yi ñu def plainte pour arrêter enquête parlementaire bi ndax man mënuma wax dara ci loolu. enquête parlementaire bu dégg nañu député notamment Ayib Daffé le nouveau président du groupe parlementaire de Yewwi mu ne moom gisul preuve wan nañu leen preuve Ayib Daffé dégg nañ ko wax loolu mais ñoom dañ d'abord dañu bañu d'abord ñoom dañu war a nekk dañu bañoo nekk ci groupe parlementaire dañu bañoon voté ci enquête boobu mu mënul wax dara ci loolu parce que moom nekkul ci biir de dégg nga politique lay wax day day day day wax politique voilà day ay audio commencé woon nañu gën ni ay audio commencé woon nañu ngeen di ne kan moo contesté audio yooyu. kan moo demee kenn certifié ko aussi ah. kenn certifié wu ko audio moom ñu ci bëri jàpp nañ certifié wu ko montage parce que non. bon euh, intelligence tey toll na foo xamante ni tout est possible yow nit mën na mën na mën na mën na décrypter sa voix tey ba ba ba mais man porter plainte da ngay porter plainte si si tu c'est pas vrai il faut porter plainte n'est-ce pas naka ngeen interpréter la silence de Amadou Ba malgré li ngeen wax yëpp ci moom. man mënuma wax dara ci Amadou Ba Amadou Ba nekkul ci silence parce que publié na ses responsabilités. non avant avant bi ngeen koy tuumaal ci mbiru Karim wadd bi. déggu la wax bi ngeen koy tuumaal ci mbiru Karim Wade bi. waaw dégguñu ko ci moom dafa ne tekk rek kenn waxu waxul ay nitam waxu. mais c'est mais ça c'est sa stratégie de défense. ok moom lu ma bëgg amoon na am am am na ko lu ma bëggoon Karim bokk. lu mu wax lu ma lu mu wax après moom insurgita ma ne Karim du bokk ci élection bokkul ci élection yi jaax na mais moom tam nekkul président léegi yéen ban suite ngeen nar a jox affaire boobu ban ban suite ngeen ko nar a jox ma ma tontu ca question boobu ma ne la PDS en temps à travers son groupe parlementaire déposé na enquête pour enquête au niveau de l'Assemblée nationale hmm. arrêté nañu procédure bi